Heavy Mess.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 bi di mécanicien di wuyu ci Y moo ko faat ba noppi gas ba mu xóot suul ko astafurlah ci fàttaliku ressortissant français boobu dañoo toog ay fan gisuñu ko ji ko wër fu ne kanaaw si na lañu ko gis ci béréb ñu faat ko ba noppi dal di koy suul ci enquête yi lañu tege woon xaritam boobu di mécanicien naka noonu bi ko enquêteurs yi gësamee muy waa section de recherche bu Ziguinchor trésor sawaay ci la mujjee yàbbi ma ne da wax de sawaay nag ni mu nettalee yëf yi moo doy waar ndax mécanicien bi faat xaritu tubaab bi ne tubaab bi daf ko joxoon treize millions ngir mu jëndal ko oto ca ndakaaru bi loolu ci la lal ab plan ngir faat tubaab bi waaye bon ci la woowee tubaab bi ci ab bërëb ne ko nañ daje ngir mu jébbal ko oto bi tubaab bi bi mu yëgsee dal di fay fekk mécanicien xaritam bi mu koy xaar naka noonu ci la ko iree ba benn béréb bu weet génne arme blanche commencé koo fëgg tubaab bi di ko ko dóor di ko ko cor tubaab bi jëm naa résister sax waaye kuuyee mujj fatal sa waay noonu la mu mujjee achevé tubaab bi yaa seexul Ibrahima Baba Lamine Dias yemul foofu dee ndax gannaaw musibaam boobu mu def dafa gas tubaab bi ba mu xóot di koy suul waay waay waay kee bon ma ne mécanicien bay wax dee mais mu defee li muy def ba noppi ci la jëlee oto bi ak téléphone portable tubaab bi tal di dem waaye téléphone boobu mu jël moo ko mujjee yoole ma ne la bakkan dafa for ndax ne téléphone tubaab boobu la mu utilisé tal di ci woo ay jege ñaaleem ne dafa dem ci sous-région bi fi mu ne otom dafa paan dafa soxla xaalis naka noonu ci la ko jege yi dal di yónnee ci Wave lu toll ci un million sept cent mille looloo ko mujj daane ma ne ko bu yàlla di jaarale fenn doo xam sa fu mu lay jaarale nga feeñ bakkan dafa for sa waay ne ci la jëlee téléphone tubaab bi dal di récupérer xaalis bi envoyé ko ci téléphone am fi mu toll mécanicien bi teg nañ ko loxo di ko toppee meurtre wolof nan ko rey nit ma ne nag ku xaalis taxa rey sa xarit ñu naan deeta waay nga gas ko suul emoo foofu escroquer ay jege ñaalem récupérer xaalis ma ne boo doonee nit mu jaaxal ma. mu moo tax ma ne jàngoro ji daal réew moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Caaroy sur Mer mu na doy waar ñaari xale ak seen maam lañu fekk ci ab nekk ñaari xale yi moom ñàkk nañu seen bakkan. kenn ki mu ngi am 11 ans ka ca des 13 benn xale bi moom nee ñu ci saa si lañ ko fekk mu faatu ka des buñ ko évacué hôpital la faatu. seen maam ji nekkoon ak ñoom ci néeg bi fi mu tollu ma nga sonn ba manga ca urgence laaj bi nag mooy njombe boobu lan moo ko war indi moo ma jaaxal en tout cas nee nañ soit intoxication la wala mu doon asphyxie ak lu ci mën di xew l'enquêteur yi ngi def seen liggéey ngir leeral mbir moomu ma ne nag yu mel nii bëri ci Sénégal de tëdd ci sa néeg rek yow ñu ne diw faatu na waaye ñett ñu xam ne ñoo amandoo problème non problème boobu li ko sooke benn la war nañ koo xool te ñu bàyyi saxaar si ñuy taal ci néeg yi mu doonoon seen xibaaru buzz di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz